GSM provider introduces Penchami. Experience SMS chatting like you've never experienced before. Create your own chat room with whichever name you choose and invite your friends to join. Simple to use and at an unbeatable price. Send a message to 999 and start chatting now. Get to know what everyone is talking about. Penchami, another Gamcell service that is rival to no other. Gamsil, your national GSM provider. Gamsil, Yai Barong. ay waay Dafatinan? dafaati nañ Gamcel ñëwaati na abee bi jag léppang ci biir Gamcel yaay boroom jënd crédit xoos dugal mën nga win, wiin lu ne inshallah wa rahmatullah mister of Abébédian Philippe naam na nga def sant yàlla jàmmare kam naa la de maa ngi nii rek lu bees sant yàlla bu baax daa am loo xam ne dafa tëj sama xel mi mooy lan fi mu jaaxal ma Abébédian hmm. fu ma toll ñu ne Abébédian Abébédian hmm. léegi ma ñëw laaj la yow yaay ministre hmm. a of léegi lan mooy Abébédian Abébédian fu mu one filin euh, Abébédian boobu nga laaj ma boo ma ko laajee dinaa la ci tontu ndax abbé bi jàng dañu koy dégg te xamuñu ko te comme man lañu fal ministre of bi jàng hmm. kon war naa a man lan mooy abbé bi jàng hmm. ak fu mu jàngee filin hmm. am réew boo ci nekkee waroo xool li la ca réew di liggéeyal yow seetal looy liggéeyal sa réew te dañ na wax ma sa ndaw yi tey ma wan la sa magi ëllëg te ku ne xam ne ne gamshal li ñuy def ci réew mi ñépp a ci teg seen bët ku ko gisul dégg nga ko walla yëg nga ko abbé bi jàng ni lii la bankal sa baaraam mooy lépp a ngi fi ana lu fi nekk baatu di laan mooy wàllu mbay mi ku ne xam na ay pawatile yi gamsel di joxe contribution bu ñuy def ci wàllu mbay mi baykat yi ñuy dimbale ak mu nekk ci baatu di laan gamsel rek la am filin scholarship bi Gamcel di joxe at mu nekk kenn xamul nu mu toll ci wàllu njàng mi ñu ngi dimbale gars yi ci mba ci njàng mi xale yi ñu ngi leen di dimbale ci njàng mi gamsel rek la am ba tey ci abee bi jàng bi opération Save the bi ku ne xam ne ne am xale mooy yore réew ëllëg ñu jël seen loxo dugal ko ci wàllu opération Save the bi ci lopitaan yi di dimbale ñi nga xam ne fa la ñuy wasi ni ak xale ya fa nekk Gamcel rek la am filin at mu nekk gamsel dañuy génne fukki tiketu màkk yoo xam ne mun nga ci gañe dem màkk boo dee jullit mhm. boo dee chrétien ñóbbu la Rome at mu nekk mosu ñoo xàddi mosu tàyyi ñoo ko fi njëkkee ku ko fi defit topp ndoor la mhm. dégg euh, gamsel indi fi wàllu football mhm. di dimbale ndaw ñi ci wàllu tàggat yaram ku ne xam na gamsel nu mu biisee ci wàllu football every time dañ dee joxe seen dimbal ci walu football ngir Gambia seen tour ag fu sore sore ci walu export deng nga bañ nañ ko ba bañ ko ñoom seen bop am nañ team tuddé ko Gamtel gamsel instant yi sax ñu ci football bu metti mom gamsel deng nga nga ñew ci reti yi ñuy joxe télévision yi ñuy joxe kenn xamul nu mu tollu at mu nekk njukkal ñew toj dëkk bi bo amé international call mhm. wala national call ñu jox la ñukkal fi li noppal ñëw ne maa noppal ñépp mhm. deng nga nga ñëw ci siiw ji moy close yu sa groupe mhm. kafoo ñëw boole ñépp ñu nekk gam sel la am motax ñu ne abé bi jam róomin ñew international call ma fa togal askanu Gambia boy tukki yobale sa card, mu melni yang sa rew sa call yep ngay jot conference call ñëw taj dekk bi hmm. motax ñu ne Gamcel abé bi jang lepp ngi fi lepp luñ doon ut lepp luñu soxla lepp luñ doon wër lepp luñ doon sét lepp mu ngi ci biir gamsel motax ñu ne abé bi jang ñun ñu dara ah. Mr Off wa content na ci lepp lo lende mo na sama xel mi hmm. leer na ma tay te jamono ji ñu dara nine hmm. abé bi jang la lepp mu ngi ci léegi xam nga naka lay def damay dem ña nga xamoon ne ñu ngi bootu sama ginnaaw te mbir mi leerul leen nag ma ko waxee lañ koy déggee. moo tax ma ne la. Mm. ji bu yàpp yëpp nekkoon res. Mm. paaka du ci am yoon. te filin mm. bitee la mu def. la saañ bay xeeñ. te ndab du seen lu mu deful. abbee bi jàng. gamsel la ndax ci réew mi la ne te ëllëg am nañ ci moom yaakaar. waaw moo tax ma ne gamsel. sam sam la sam sam la. ku ko am loo di xaaraane gamsel moom sam la ku ko am loo di rootaani sam-sam la sam-sam la ku ko am loo di xaaraane gamsel moom sam la ku ko am loo di rootaani ah Philippe kontaan naa de baax na gis nga maa ngi dem na loolu la lii mhm. bu ma demee mhm. sama waa kër sax mhm. tëjoon na seen fan waaye leer na ko ci koñ bi yëpp ñëpp danañ ko yëpp baax na waaye merci beaucoup jërëjëf jërëjëf thank you jërëjëf thank you very much <laughs> nii la hmm? nit boo xamul da ngay laajte xam noppi ci it baaxul boo xamee dal xam le abbé bi jëng lañu wax gëm se rek la lépp ngi fi mooy abbé bi jàng loo soxla mu ngi fi loo bëgg mu ngi fi looy wër mu ngi fi looy wut mu ngi fi lépp loo soxla lépp lépp lépp lépp abbé bi jàng man ministre of abbé bi jàng maa wax lii ak man waaw mu ngoog yow xam nga li may def ndax dama jàppoon na tey fukki fan ak ñett la hmm. ndekk tey fukki fan ak ñaar la dégg la dégg nga xool am na solo xool am na solo calendrier lu am solo la waaw hmm. ah eh naa am na ko waxoon ma koor ko hmm. te sama crédit bëriwul dese woo crédit maa ngi fi amee dalas de kanaa xelloo rek de waaye bu naree bari mu fay de mu fay dëgg la kay waa xaaral allo pa waaw na nga def wa man la jaam rek am la mané dafa am ku né ma kool ko te man sama crédit bi li ci bari bëriwul lu ndaw la man ta wax lu bari moy li ma laay woowee ni ma bëggoon waaw nga ma fi eh, nopal crédit 50 dollars waaw waaw mangi ngi genn léegi buma genné dana fi jaar man nopal bi ma doon jaay mo jeex jeex na waaw dana fi jaar ma ngi ñëw uti nopal waaw dana fa jaar waaw seen ma ko léegi tey baax na jërëjëf waay jërëjëf waaw boo jaayee ñu ba noppi rek waa baax na jërëjëf. Sané waaw commencé nga si fi tappale yi